alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki chrétien yi képp koo xamante ni yaa ngi soqeekoo ci sunu maam aadam man Pape Niang social maa ngi lay nuyu te di la siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak ami internet yi nga xamante ni yàllaa ko def ñu bëggal ma seen bopp di ànd ak man ci liggéey bi bari na ñoo xamante ni sax bëgg nañ ma te mësuma leen a gis te wax dëgg yàlla man lañuy faaroo ngir liggéey bu tedd bi nga xamante ni yàlla suñu borom àtte na ma di ko def fii ci senegal umpale wu leen ni dama accidenté woon le 3 février 2024 oto bi nga xamante ni moom mbëkk dafa daw waaye fum mu mënti nekk na xam ni man Pape Niang social mbëkk bi nga xamante ni mbëkk na ma ko jéggal naa ko ko ci xol bu sedd guyi topp ma ko ci dara te maa ngi ñaan yàlla ñi nga xamante ni ñoo may seetaan képp koo xamante ni doon na ko ñaan yàlla na ko tuub jéggalu ko boroomam te xam ni xaw la wala laa la wala quwwata illa billahi anil azim jaam amul kàttan jaam amul pexe jaam mënta jariñ jaam mënta lor xanaa yàlla rek lii nga xamante ni dal na ci sama kaw jiiñu ma ko ma sàmba jiiñu ma ko ma demba yàlla bindoon na ci sama dund dina ma dal te bu ma dalee dina ànd ak nangul yàlla ni moom rek moo ma ko teg ndax kat sunu boroom xarit ba lay musibaal ginnaaw si loolu bi nga xamante ni accident bi fii laa ko amee woon Sénégal wax dëgg yàlla médecin yi nga xamante ne ñoo ma doon suivre tànk bi lañ gisoon ni moom moo damm ba ñu opéré ko def ci ay fer ba benn bi sax benn vis desserré woon na ba enflé tànk bi wante ba ma fa delloo dañoo xottiwaat tànk bi génn vis boobu noonu waaye ba léegi teewul woon tànk baa ngi doon metti di ma fitnaal guddeeg bëccëg sama médecin moo ma joxoon ndigal ci naay doxee benn beeke bi ma di ko doxee di yëg mettit yi muy gën a metti lool waaye ginnaaw si loolu nag bi nga xamante ni accident bi am na sama mbagg bi doon na metti ma jotoon ko wax médecin bi xamal ko ni ko wax dëgg yàlla mettit bi may yëg ci tànk bi mettit bu ni raw moom lay yëg ci mbagg bi wax dëgg yàlla bi loolu amee tamit médecin bi def loo na ma rajo bi ma defee rajo bi rajo bi génnee xool na ko ndax ni ah lii moom jarul opération loxo bi moo summeeku am na yax bu rocceeku xaw loxo bi moo summeeku wante bu yàlla dogalee bu yaram bi seddee dina dellu man tamit ma jàpp loolu ñu wax ndax comme loolu mooy seen xam-xam ma jàpp loolu man tamit di jënd frotté bi nga xamante ni mooy Dinapar gel daanaka su ma jëndee Dinapar gel daanaka ñetti yoon ñetti fan lay am ci man ndax ñi nga xamante ni ñoom laa nekkal ku ci mel ni mbay kàññi mi nga xam ni dafa abandonné léppam di ma accompagner ndax fi mu toll nii man Pape mënulu ma sama bopp dara mënuluma sama bopp dara ba dara booloo jeex mënumaa dox mënumaa jóg su may tëdd dañ may jàppale ma tëdd su may jóg dañ may jàppale ma jóg su may dem ci wanag bi dañ may jàppale dinaa ñëw ci lan moo waral loolu ah bi nga xamante ni maa ngi dund ak méttit yooyu noonu ma def vidéo di woote wallu di wax ni maa ngi yëg ay méttit yu doy waar wax dëgg yàlla am benn jigéen yu nekk fële ca diwaanu Amérique wax dëgg yàlla nee na ma may naa la nga wax ma dem Seck waaye sama tur bul ci jaar mukk suñ pap ndax li ma la defal dama ko def te yàlla rek tax ndax damaa gis ngay def loo xamante ni senegal gisuma kenn koo xamante ni mu ngi koy defee comme ni nga koy defee loolu moom moo tax sëriñ pap waroo tëdd ndax yow boo tëddee da ngay tëral ay doomu aadama yu bari loolu moo tax waroo tëdd bi nga xamante ni loolu am dinaa fexe nga am visa amerique ma fayal la nga ñëw fii Amérique ñu faj la ba nga wér bi nga xamante ne lijjanti na ba sonn mbir yi dëgër ci la ma ni comme mbir yi dëgër na léegi li may def mooy daggal la billet Maroc clinique bi gën a rëy ci Maroc te gën a yor ay spécialiste ci wàllu médecine su ko defee foofu dinañ la faj loolu mu wax mu def ko daggal ma billet euh, Maroc ma déparé fii le 11 mai utali ca diwaanu Maroc maa ngi nekkoon fële ca Sidi Marouf ba ma yeggee Maroc ki nga xamante ni moo ma dalal mu di maam assu mbay ñu gën ko xam ci Miisu Mbaye mu nekk président association des sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk Maroc wax dëgg yàlla di ca def liggéey bu am solo li may def Sénégal li may def Sénégal ci néew ju doole yi ñoom dañ koy def waaye ci ñun ko jëmale mooy sénégalais yi nga xamante ni dañ leen a tëj ci prison Maroc bi moo xam ngay jigéen moo xam ngay góor moo tax maam Assou Mbaye mi ngi def liggéey bu ama am solo foofee ca diwaanu Maroc wax dëgg yàlla muy Miisu Mbaye ma lay ñaanal entreprise boobu nga nekk muy Orange yàlla na la ci yàlla suñu borom defal ndam ba nga doon directeur Orange international bi ma eggee Maroc maam Assou Mbaye moo ma dalal këram jox ma néeg jox ma lal occupé sama lépp dara manqué wu ma bi may dem maa ngi yor beeke di dox ak sama tànk bi nga xamante ni dalal na ma ci këram boole ma ak euh, rakkam muy ki nga xamante ni mooy mami wax dëgg yàlla ñu gën ko xam ci maam Anta moom ci boppam mu daal di may dalal moo may toggal moo may jox ma lekk moo may jox ma naan sama dara manqué wul li ma nekk séjour bi ma am foofee ca diwaanu Maroc mu boole ma ak ki nga xamante ni moom mooy Tons ma yoro Mbaye moom tamit muy sama grand frère di sama ndijaay nekk koo xamante ni Maroc laa ko xamee waaye mu jàpp ma koo xamante ni ñoo bokk ndey ak baay di ma jàppale su may dem hôpital lépp ñu di ma ko defal. bi nga xamante ni yegg naa Maroc ñaari fan laa ci teg ñu daal di may yóbbu fi nga xamante ni mooy clinique privée internationale euh, bi nga xam internationale bu Casablanca. ko ku dégg li may wax di nga xam clinique bi nga xamante ni falaa doon fajoo mooy clinique bi gën a baax ay médecin yoo xamante ni seen xam-xam wa màcc na jëm ci wàll gépp bi ñu eggee foofu ci clinique euh, privée internationale bu Casablanca fekk nañ fa grand mama Ba grand mama Ba nekk nit ku baax nekk sénégalais boo xamante ni mi ngi dox diggante naar yi ak sénégalais yi ba bu ñu laajee sénégalais yi loo xamante ni attanuñ ko te diis na lool ci ñoom moom grand maman day def benn intervention ci diggante naar yi ak malaat bi ba buñ la laajee loo xamante ni àttanuloo ko moom moo ciy nekk di ci combattre di ci combattre ba ñu wàññil la ba fi nga xamante ni fa la sa doole yam bi ma yeggee wax dëgg yàlla grand maman dalal ñu ci dalluwaay bu rafet ma di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal coono bi mu daj ci man yàlla na ko ko yàlla sunu borom fay ngën gi pay ah bi nga xamante ni defal nañ ma fa ay analyse ak ay scanner ki nga xamante ni mooy madame sekk dafa sàkku ñu defal ma bilan complet lépp luy tawat boo xamante ni mi ngi ci jëmmi Pape Niang nañu ko xool lépp luñ ci mën ñu daal di koy def ngir kat Pape warul tëdd bi ñu ma defalee bilan yëpp benn feebar lañu gis ni su ma teggiwul suma tànk dina ma dal muy li nga xamante ni moom mooy feebaru jabet ñu ni daal amuma ko waaye pre jabet mi ngi commencé installé wu sama deret kon lépp lu jëm ci wàll suukar naa ko wàññi ndax amuma jabet waaye pré jabet laa am te pré diabète mooy wone ni su ma teggiwul suma tànk ci wàll suukar ak ni may dundee ak li nga xamante ne noonu laay euh, sama ci li nga xamante noonu la ñuy dundee fii ci senegal ci wàllu ceeb yàppu xar yàppu nag su boobaa mun na ma gën a fitnaal waaye li gën a doy mooy est-ce que su ma leen waxee ni depuis bi ma accidenté le 3 février hôpital yi nga xamante ni jot naa ci jaar ak clinique yi nga xamante ni ñoo ma doon faj dañoo gisoon ni sama tànk rek moo damm mais Maroc bi ñu ma defalee scanner ak rajo ma ne leen sama mbagg bi day metti ñu def scanner dañoo gis ni sama mbagg bi jour bi sama tànk bi dammee jour boobu la mbagg bi damm médecin bi ne ma mais Cheikh nan nga mën a dundee ak loxo bu damm ak li ci mettitu damm-damm nga di dund ak moom durant quatre mois yoo xamante ni yaa ngi ànd ak sa épaule gauche bi dafa damm ba yax bi dafa taqalikoo nan nga mën a dundee métti yooyu ma ni ko comme man sama spécialité man sama xam-xam màccul ci jëm ci wàllu médecine ñi ma doon traité dañoo wax ni jarul opération euh, mbagg bi moom moo summeeku man tamit loolu rek laa jàppoon waaye maa ngi doon dund ay méttit yoo xamante ni wax dëgg yàlla fu ko waaye nattu weesu na ko mu ni ma nag léegi il faut que dañ lay defal opération ñetti opération lañ la war a defal mooy xool nañ tànk bi biñ la opéré xanaa danga ci doon dox ma ne ko sama médecin bi ñu demee ba am weer ci la ma wax ni mën naa dox ci tànk bi mu ne ma nag kon tànk bi dox bi nga ci doon dox moo taxoon yax bi di déplacé wu di yëngatu daan naa toog fii ci kër gi daaw ko wax sama soxna yi daaw ma ko wax kenn mais man maa ko doon dund bu ma toogee ba mu yàgg su may su ma tegee tànk bi damay sentir ni tànk bi daal yax bi dafay déplacé wu su ma jàppee tànk bi bu ma ko bu ma ko defee nii day yëngatu nii maanaam dafay balancé wu nii balancé wu nii loolu nag xawoon maa def benn stress ndax lan moo tax tànk bi ñu feere ko ba noppi mu muy yëngatu bi loolu amee wax dëgg yàlla ami internautes yi daan nañ ma gis may dox ñu bari ni ma pap da ngaa teel a dox ci tànk bi tànk boo xamante ni dañ ko opéré feere ko waroo cee dox lu dul da ngaa toog euh, temps bu yàgg pour ñu pour nga mën cee dox man ne leen mais man suma médecin moo ma ni mun nga dox ci tànk bi mun nga dox ak benn bekke bi nga teg benn bekke bi bis bi ma tegee benn bekke bi ci laa tëdd sama tànk bi neew yi moo waraloon vis boobu rocceeku ah bi nga xamante ni nee na ma dañuy dañ lay defal ñetti opération sama àdduna yëpp tukki nag ndax première opération bi ñu ma opéré tànk bi dama cee daj fitna yoo xamante ni mettit yu tar yoo xamante ni ñaanu ñaanuma woon yàlla mu dalaat ma ci sama dund waaye nattu moom bu jeexagul rek boroom nakagul nattu moom bu la ko yàlla tegee te jeexagul wax dëgg yàlla nekk nekkagoo ci aafiya waaye da ngay ànd ak muñ nangul yàlla li la dal te bañ koo jiiñ ma sàmba bañ koo jiiñ ma demba ah bi nga xamante ni loolu am na wax dëgg yàlla mu ne opération épaule bi dañ koy opéré opéré biir bi opéré waat tànk bi dindi feer yiñ ci def monte waat ci yeneen ay feer mbagg bi tamit bu ñu ko opeeree dañ ciy def ay fer biir bi bu ñu ko opéré dañuy dagg ci biir bi taf ko euh, greffé ko mbagg bi dagg biir bi greffé ko tànk bi pour mu mën a taw féexe ndax tànk bi dafa am infection mbag bi dafa am infection mu ni ma pap cheikh ma ne ko waaw mu ni ma soo toogaatoon trois mois yoo xamante ni jugoo nga jugoo ci sa bopp nga faju ci sa wàllu Euh, ci sa wàllu yaram maanaam boo toogee lu mat deux mois wala trois mois mën nga piqué crise AVC mën nga piqué AVC ndax ma ne ko lu ko waral mu ni sa loxo bu damm bi dafa dem ba tàmbali woon laal neer yi moo tax damay toog ba mu yàgg sama baaraamu càmbuñ bi dafay dafay dafay dafay crampe su crampé damay def nii ba sonn mais dafay moom rek mooy crampe nag mais su crampé daanaka buy bu crampe bi dañ duma ko sax sa duma ko sax damay toog di def toog nekk ci dara rek ba mu yàgg mu daal di kii yàlla dogal ñu defal ma opération yooyu ma dund mettit woo xamante ni ba ma juddoo ba sunu jonn yàllay tey masumaa dund mettit wu toll ni mettit wi nga xamante ni dund naa ko foofu ca Maroc ki nga xamante ni moo ma jël en charge li mu frais ci man ëpp na cinq millions te yàlla xam na ni mësuma koo teg bët sunu daje woon ci mbedd mi billahi lazi laa ilaha illallah du ma ko xam mu ni ma li ma la defal dama ko def te yàlla rekk tax wax dëgg yàlla ma génn bloc te bi ma génnee bloc ñu yóbbu ma ci ñu yóbbu ma ci chambre privée chambre boo xamante ni man rek maa fa nekk amoon na guddi goo xamante ni médecin bi dafa yebal ñaari élément ñu ñëw toog pour jege ma ndax méttit yi nga xamante ni maa ngi ko doon jànkoonteel su méttit yi demee ba am fu mu toll ci man damay gis ñoom dañuy jóg indi appareil yi xool sama tension bi bu ñu xoolee sama tension bi daal di may pikiir benn pikiir ma suñ ma pikiiree ma daal di nelaw mais su ma nelawee trente minutes une de temps laay nelaw méttit yi ñooy fees ci sama jëmm ji ba duma ko attan mooy waral may yeewu su ma yeew waatee ñu dooraat ma beneen pikiir man nelawaat trente minutes une heure de temps yeew waat noonu la ñuy nekkeek man ba guddi gi jeex ma leen di sant di leen gërëm di sant ñi nga xamante ni ñoo ma jàppale te yàlla rek tax su leen neexoon ngeen ni Pape Niang mii kat jarul jàppale su leen neexoon ngeen ni Pape Niang jarul taxawu ndax coono bi nga xamante ni maa jël sama dund gi yépp tuddee sama bopp l'homme qui a sa vie pour aider personne personnes te yàlla rek tax te loolu képp ku xam Pape xam ni jeexal naa sama dund gi ci taxawu way néew ju doole yi xàmmeewu ma ma sàmba xàmmeewu ma ma demba képp ku ma sollicité te yàlla suñu borom kattal na ma ma mën a dem ci yow dem naa ci yow taxawu naa la ba def naa li ma war ci yow ba sa dund soppeeku yàlla xam na ni léeg-léeg damay dem di dimbali néew ju doole te kamay dem di dimbali ba dajaleel ko xaalis bu bari di ko ko yóbbul xam naa ni man man mi dem di ko dimbali maa ko gën a sonn ma xam ni rek yàlla day jàngale bi nga xamante ni génn naa hôpital wax dëgg yàlla ñu fere ci man xaalis bu tool noonu ma di leen seedeel ci yàlla ni madame Seck mi nga xamante ni moo ma jël en charge du cent franc boo xamante ni deseel na ko hôpital bi nga xamante ni falaa doon fajoo muy clinique privée internationale bu Casablanca du fukki dërëm boo xamante ni deseel na leen ko du ordonnance du analyse du dara lépp loo xamante ni warugar la ci hôpital boobu noonu madame Seck def na li nga xamante ni moom la waxante woon ak ñoom ki nga xamante ni mooy grand maman mi doxoon ci diggante naar yi pour ñu wàññi ndax naar yi li ñu laajoon mooy mille 77 300 dirham waaye moom grand mama moo ci taxaw ba ñu wàññi 77 300 dirham yooyu noonu daal di koy def 64 000 dirham moo tax grand ma ku jar a sant la ku jar a gërëm la ku jar a jaajëfal la ndax amaana bu dul woon moom mën na metti lool waaye ci kan lay metti ci ki nga xamante ni moo ma jël en charge muy madame Seck waaye bi nga xamante ni wax nañ ni 77 300 dirham moo may faj dama ko envoyé message whatsapp ma ne ko ñaan naa la lii ñu laaj ci xaalis bari na te xaw ma fan la sa doole toll ma lay ñaan bu fekkente ni lii ñu laaj attanuloo ko maa ngi lay ñaan jéggal naa la ma daal di duggaat avion dellu Sénégal toog ci suma wetu njaboot lépp lu yàlla dogal ëllëg mu doon li ma neex mu amee ci sama kanam njaboot waaye ñaanuma yàlla teg la loo xamante ni attanuloo ko mu metti ci yow ay million lu ëpp juróomi million nga def ko ci nit koo xamante ni musulaa teg bët nga jaamoo ko yàlla te yàlla rek tax da ngay jaay baax li nga xam ni yàllaa la gën a baax waaye ni nga xamante ni noonu la ma ko Cheikh Moustahine Diagne Baye Fall di waxee ni ma sëñ Pape doo jaaxle mukk ci àdduna te doo sonn mukk ci àdduna ndax li nga liggéeyal yàlla ci jaamam ñi yàlla suñ borom gis na ko te kuy yàlla kuy jëflanteel jëflanteel ak yàlla ndax kat def ci yàlla buy dal rek muy dellu ci yow buy dal rek muy dellu siwaat ci yow wax dëgg yàlla may sant ki nga xamante ni moo di Mariama nekk membre ci association taxawu ñu wéri di te yàlla rek tax fekk na ma marok ñëw ba fi nga xamante ni fala nekk muy Sidi Marouf mu dalal ma moom tamit daal di may jëndal lépp loo xamante ni ay xéewal la jëndal ma ay meew jëndal ma ay jëndal ma ay meew bàyyi ñëw bàyyi ñëw jëndal ma ay meew jëndal ma lépp loo xamante ni bi Cheikh wàcc nga waaw jëndal ma lépp loo xamante ni ma jëndal ma ba jëndal bébé Cheikh sax ay yére jëndal ma jàllaabe te bi nga xamante ne opéré naa ba pare jàllaabe rek laa mën a sol ndax damay war dem hôpital di def ay euh, di def ay pansement wax dëgg yàlla waaye li nga xamante ni moo diis ci mbir yi mooy médecin bi nga xamante ni moo ma opéré daf ma wax ni ma sa tànk bi waroo ko dëgg waroo cee dox lu toll ni deux mètres waroo cee dox lu dul da nga war a toog ci fauteuil roulant durant trois mois Pape Niang mu war a toog ci fauteuil roulant trois mois xëyul dem ci activité yi xëyul dimbali kenn Pape Niang loolu feebar la ci moom waaye nag ba léegi ñu sante ko yàlla xanaa kay li ci nar a diis mooy dama yor njaboot war a toog ñetti weer du xëy war a toog ñetti weer ba noppi bu doon suma njaboot kese sax mun naa oyof waaye ba tey ma yor njaboot goo xamante ni njabootu yàlla la mu leer ma leeru yàlla ni ñoom su ma leen delloo ci seeni mbokk dañu ñu delluwaat ci seen néeg yu xat ya danañ leen delloowaat ci seen jéng ya danañ leen delloowaat ci seen néeg ya néeg yu tàng ya te wax dëgg yàlla ñaanu ma ko yàlla may sàkku ci képp ki nga xamante ni yaa ngi may seetaan jamono bii ñu nekk waxtu wii daaw fekkoon na ma man Pape ma dajale woon ba amoon lu toll ak deux millions cent mille demoon ba demoon ba Daara Jolof doon jëndi xar awma ma ñëw ba Touba jëndee xar bu nekk cent dix mille ma jënd ci lu tolloog quinze xar bi ma jëndee quinze xar yooyu noonu dem ci ñoo xamante ni mësuñoo tabaski mësuñoo ñam bànneexu tabaski rey xar seeni rey xar ci seen kanamu njaboot lu dul dañ leen daan sarax ay ndawal ma dem dis dem yóbbul leen ko ba noppi ku ma jox xar tegal la ci fukki junni tey jii fii ma toog ñoo ñooñu ñëpp woo nañ ma téléphone ci tawat bi ma nekk tamul leer ma ni Pape Niang mënulul boppam dara mënta jóg dem fenn waaye ba tey maa ngi ñaan yàlla mu kattanal ma fii ma toog yàlla di ma jox ay xéewal yoo xamante ni képp ku yaakaar yàlla ngir Pape Niang taxawu la sa yaakaar bañ a tas te gëm naa ni yàlla suñu borom dina ma ko defal te maa ngi ñaan yàlla tawat bii nga xamante ni moom la ma yàlla teg danaa muñ naa ko te nangul naa ko yàlla waaye li may sàkku ci bonne volonté yi may seetaan képp kuy nit ku baax képp kuy jaamukatu yàlla garmee ngi nii toog gor dëgg mi ngi nii toog goor nag ci ngoram musumaa lekk dërëm bu yàlla gërëmul ci képp koo xamante ni maa ngi lay taxaw tey lépp lu ma am kaw ba suuf billaahi ay jaami yàlla ñoo bég ci li may liggéey ba taxawuma ci lépp te yàlla rek tax may gërëm suma suma yaay di gërëm sama mag soxna Ndey Faatu Jóob Greensboro North na di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye may gërëm sama mag awataal di ko gërëm te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di gërëm bu baax suma mag Ajaa Ñang coono bi nga xamante ni daj ngeen ko ci suma jëmm ji yàlla na leen ko yàlla suñ borom fay waaye plus particulièrement maa ngi gërëm sama frère di bàyyi sëwru mi nga xamante ni sama rakk la su ma xarit la su ma lépp la noonee lay gërëmee ñi nga xamante ni ñoo ma wuutu woon ci kër gi muy Cheikh Moustahine Diagne Baye Fall ak ki nga xamante ni mooy Baye Mbaye Kandji ñu bàyyi seen kër yi bàyyi seen soxna yi bàyyi seen njaboot gi bàyyi seen lépp ñëw wuutu ma ngir sàmmal ma njaboot gi ba ma dellu si ci jàmm noonee laay gërëmee ki nga xamante ni mooy soxna ayda Ndiaye laa maman des malades mentaux de Mbour moom it mu bàyyi léppam accompagnel ma ko ci tout tànk bi ba ma dellu siwaat Sénégal waaye xam ngeen ni diis na lool ci man ki nga xam ni mooy Codou mbay diis na lool ci man ki nga xamante ni mooy njole ñu ajuwaat ci sama kaw te ma war a toog ñetti weer yoo xamante ni liggéeyu ma waaye dénk naa yàlla sama bopp tey ñaan yàlla suñu boroom yàlla na ma taxawu ci njaboot gi ba bu ñu xiif bu ñu mar bu ñu jaaxle képp koo xamante ne am na yaakaar ci yàlla bëgg Pape Niang taxawu ko yàlla bu yaakaaram tas te maa ngi ñaan ci yàlla képp koo xamante ni am na yéene jàppale Pape Niang accompagner Pape Niang te yàlla rek tax ndax fi mu toll nii man war naa def ay terapi ndax sama loxo bi mënul jóg ba ci kaw ndax mbagg bi moom lañ opéré te mën na jóg ba nii gis ngeen ko fii rek la mën a yam mais munu ko yëkkati ci kaw il faut ma jàpp loxo bi yëkkati ko nii tuuti te su am na foo xamante ni su ma fa yeggee dafay metti metti woo xamante ni du ko mën a kii waaye daal lu ngeen ci mënti xam mooy man Pape Niang social wax dëgg yàlla bay naa suma waar te gàcce ngalaamaal naa suma réew liggéey bi nga xamante ni maa ngi koy def muy dimbali doomu aadama yi duma ko bàyyi ba keroog may sàngoo suuf fii nag laay toog trois mois yi nga xamante ni moom la ma moom lañ ma wax ni naa ko toog trois mois yooyu dinaa ko toog duma dem fenn lu dul lu mënta ñàkk waaye fu ma dem tamit ci fauteuil roulant bi laay toog damay dem dama war a dem hôpital dama war a def ay kinésithérapie dama war a def ay ay ay ay kinésithérapie te wax dëgg yàlla loolu dafa am moyen bu mu laaj waaye dénkaat naa yàlla sama bopp tey ñaan ci màggug yàlla képp koo xamante ni am na yéene ci sama jëmm ji maa ngi koy ñaanal yàlla mboolem yéene bu mu am yàlla na ko ko yàlla suñ borom defal ndax kat ku daan dimbali nit ñi ba tey yàlla tënk la tey teg la tawat bi nga xamante ni moom la daan teg ñi nga xamante ni ñoom nga daan dem di dimbali kon am na lu la yàlla bëgg a jàngal ci àdduna yow mi nga xamante ni dara daru la yow mi nga xamante ni yaa ngi ànd ak sa kàttan yow mi nga xamante ni yaa ngi ànd ak sa doole yow mi nga xamante ni yaa ngi ànd ak sa xel jaamu ci yàlla balaa muy wees yow mi nga xamante ni yaa am alal jëlal sa alal nga ci lañ koy bàyyi kon nañ jël ci sunu alal di ko jaamoo yàlla di dimbali way tawat yi ah Pape Niang moo daan dem di dimbali way tawat yi waaye Pape Niang moomu daan dem di dimbali way tawat yi tey moo moo tawat ba toog ba soxla ku ko dimbali te yàlla rek tax kon nag ñibbisi naa senegaal ci jàmm egsi naa ci suma réew egsi naa ci suma dëkk egsi naa ci sama diwaan may ñaan ci yàlla képp koo xamante ni am nga yéene ci Pape Niang nga jàppale ko rek te yàlla tax te xam ni moom Pape Niang da daan jóg di dem di jàppale néew ji doole yi waaye tey jii moom mi daan dem di jàppale néew ji doole yi wax dëgg yàlla moom mais tey moo tawat ba soxla ñu jàppale ko ngir mu accompagner njabootam koo xamante ne am na ceeb baax na ku am diwlin baax na ku ma mën a wutu sax ci dépense baax na waaye ku ma xam xam ni Pape ñaa liggéeyal réewam liggéeyal askanam liggéeyal néew ji doole yi rek a ma ñor rawatina tabaski gii nga xamante ne ci la ñu nekk képp koo xamante ni am nga yéene dimbali doomu aadama bu néew doole ñaan naa la ngir jëmmi yàlla Pape ñaa moo tawat tëdd këram waaye équipe bi nga xamante ni moom lay àndal ñi ngi xëy suba ak ngoon ci terrain bi te liggéey boobu nga xamante ni ñu ngi koy def mel na ni Pape moo koy def ndax ni ma ko doon defee tàggat naa ay ndaw bañ mën koo defee ni ma koy defee kon amaana tey ñu ngi koy defee ni ma ko waroon a defee kon man sama jaan wàcc na li bonoon kay mooy ma di ko def te kenn xamu ko te tey dem nañ ba Sénégal ñëpp di def social bari na ñoo xamante ni social bi nga xamante ni ñu ngi koy def mun naa wax ni social man ak Fadel Niang bu Dakar Buzz social ñoo Fadel sax moo njëkk indi Sénégal Dakar Buzz social man Pape Niang ma doon ci ànd ak moom mu jàngal ma ko ba ma mokkal ko ma di ko defee ni mu koy defee ba tax ñu nekk ci di ci liggéey liggéey bu am solo def lu baax nag dafa jar a ndax lu baax loolu ñu doon def moo tax tey képp kuy def lu baax bari na ci ñoo xamante ni jëf ji nga xamante ni moom lañ doon jëf ci lañ ko royee ba di ko defee niñ koy defee kon yàlla na leen ci yàlla suñu borom defal ndam képp ku tawat tëdd nanga nangul yàlla nattu bi la yàlla teg te nga xam ni du sëriñ moo la ko def du liggéey moo la ko def du jàmbur moo la ko def yàlla ko tuddoon ci sa dund te day am kenn mënta li yàlla bind ni dalay dal kenn mënta tee mu dal la bu la dalee ba noppi nag yow yaay nangul yàlla mu woyof ci yow waaye bu dalee ba noppi nanguloo yàlla mu diis ci yow te ba noppi doo ci alal yàlla suñu borom suñuy loxo te di ko ñaan lu ñu ñaan lu ñu yàlla may nañu ko jël nit ñaan na loo xamante ni doo ci alal yàlla suñu borom suñuy loxo te di ko ñaan lu ñu ñaan lu ñu yàlla may nañu ko jël nit ñaan na loo xamante ni gënul sax ci moom yàlla may ko ko mu gën ci moom kon maa ngi leen di sant dayob cant te di leen gërëm dayob ngërmande tey ña ma ñaanal yàlla na leen yàlla suñ boroom fay képp ku sonn ci sama jëmm ju xeebu ji te yàlla rekk tax yàlla na la yàlla suñu boroom fay ngeen gi payoor kontaan naa bég naa mbégte gi ma bég yàlla na ngeen ko bég yàlla na leen yàlla teral maa ngi gërëm suma njaboot gi ma bàyyi woon ci kër gi wax dëgg yàlla mooy suma soxna yi ma yàlla dénk ma di leen sant ñoom tamit di leen gërëm di sant ñi nga xamante ni ñooy suma équipe sociale yaa Adama Sène Baye Wuri Ba Baye Pambay Baye Ahmed Sougou wax dëgg yàlla sant naa leen dayob gërëm naa leen gërëm naa sama rakk soxna asu nekk ca Canada daawul toog bis te déggante wuñ téléphone may sant bu baax sama rakk Ahmed Niang di sant sama rakk bi nga sama rakk yaa ko ñang waaye di sant soxna Amet muy Asta Mbay di sant soxna yu Baye Sowru muy ki nga xamante ni mooy ay dara di ko ñaanal jàmm ak sutura noonu lay sante soxna Ummi Kalsum Njaay aawa yaay di la ñaanal nga yàgg ak yokk ni nga uufee njaboot gi rafet na ni nga xamante ni noonu ngeen nekkee ci kër gi rafet na maa ngi leen di sant te di leen gërëm Pape Ñaa daal seenum Pape Ñaa la ku am ci moom yéene numéro yaa ngi noonu ci bande écran bi te yàlla rek tax yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal xéewal yàlla nañu yàlla defal wér ak teraanga àdduna ak alaaxira lu ñu am yàlla na nañu am yàlla lu nu ñàkk yàlla nañu des ak sunu ngor waaye lu nu am daal yàlla nañ am yàlla maa ngi gërëm suma sang suma wasila suma buntu ci yàlla mu di Mawlana Cheikhuna Cheikh sa Diouf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér sant naa leen gërëm naa leen yàlla na leen yàlla suñu borom fay wax dëgg yàlla liggéey bi nag day continuer ndax équipe bi chaque jour ñu ngi sur le terrain jërë ngeen jëf yu àndul ak wàcc yàlla na leen yàlla fay àdduna ak àllaaxira jërë ngeen jëf.